FM, Forum seeni xët ak l'observateur mi xëy euh, tey ak yéenekaay yëpp ñëw ak xalifa Sall ak coowam alors l'observateur def ci xët bi ci français ni condition de détention du maire de Dakar xalifa s'évade en prison waaw mu mel ni kon yéenekaay bi delsi na rek ci nekkinu Khalifa Sall maire wu Dakar nga xamante ni yendu na bu bëccëgam bu nekk njëkk démb ca kaso bu rëbës moom nekk nee na daal dañ ko rek euh, jox li nga xamante ni mooy cellule nekk ca VIP ya moom euh, nag nekkul fi nga xamante ni fa la Karim Wade nekkoon buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi euh, moom it jël na rek ci li nga xamante ni moom mooy lettre bi nga xamante ni ñi ngeen jàpp ni daal ay percepteur lan ñoom it bind nañ lettre jagleel ko procureur bi ngir rek contester réquisitoire procureur bi loolu lépp yéen kaay bi daal dina ciy dellusiwaat. naka lay dundee ci rëbës ba ci yéen kaay bi di Vox Populi ci la xëy tey ñoo ngi liir ci xëtu yéen kaay bi Chérif ci français ni incarcéré au quartier VIP euh, de la prison centrale de Dakar comment Khalifa vit à rëbës. moom yéen kaay bi dellusi na rek ci Khalifa Sall na muy dundee ci rëbës wante nag wute ak li l'observateur wax ndax yéen kaay bi moom nee na. Karim Wade eh, kii di xalifa eh, Sall ca eh, néeg ba Karim nekkoon moom la nekk yéenekaay bi daal di dellusiwaat rek ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni daal ñu ngi rek dugal meeru Ndakaaru jëm ci ba léegi ci li ñuy tuumaal moom Khalifa Sall liñ koy toppee. ab laaja samp ci avenir moom xalifa Sall loolee ñu ngi koy liir ci xëtu yéenekaay bii di la tribune emprisonné pour détournement l'avenir de Khalifa en question. ëllëgu xalifa Sall nag moom la yéenekaay bi di La Tribune indi ab laaj samp ko rek jëm ci loolu ba tax na rek Benno tamit daal ñëw na rek ci li nga xamante ni chargé nañ ko Khalifa Sall jàpp ni daal moom liñ koy tuumaal moom moo ko def ba tax na yenn kaay bi di la turbine daal di ci samp blaaj am jàngat bu mu ci def it ci ëllëgu meeru Dakar ginnaaw rek euh, biñ ko tëjee ci kaso bi ak ambition yi moom jëm ci législative yi ak présidentielle yi ñu dëgmal. waaye politique yeeg seen tëjum kaso yéenekaay bi di enquête da cee amal ab gëstu boo xoolee xëtu yéenekaay bi euh, daanaka def na ci nataaluk ñenn ci ay nit yoo xamee nii dañ leen mës a ràññee euh, ci wàllu politique fii ci Sénégal te daanaka mës nañu kaso incarcération tout limite euh, depuis 2012 le délit d'opposition le yéenekaay bi di enquête tuddee mbir moomule mu mel ni kon buñ sukkandiku ci yéenekaay bi nekk opposition ak Macky Sall daal dafa mel ni délit la ndax eh, ñi jëmoon jugoon ngir jaamaarloo moom ca kaso ba lan mujj nga gis ko noonu Bara Gaye Khalifa Sall maître Amadou Sall Aïda Ndiong Karim Wade Ndeye Khady Gueye ak tamit eh, kii di Oumar Sarr ak Bamba ñoom ñëpp daal boo seetee ñaar ñaa ngi ca kaso ba ñeneen ñes des euh, jot nañoo mos euh, kaso bi te dañoo jugoon rek ngir opposé wu kon ba tax yéen kaay bi daal di def ab jàngat ci loolu. Aïda Mbodj moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di le quotidien ñoo ngi liir ci xët bi ci français ni Aïda Mbodj divorce divorce entre guillemets d'avec le PDS. mu mel ni kon daal euh, ànd ba ak diggante PDS ak soxna Aïda moom euh, daanaka ànd amatu fa ndax moom Aïda Mbodj mi ngi jël mouvement boo xamante daal daf koo bëgg rek moom mouvement boobu demal boppam ci élection législative yi ñu dëgmal bi ne moom soxna si mi ngi amal ay tournée politique ci biir réew mi loolu lépp daal. mu tënk ne daal moom soxna si daal dafa bëgg ber yoonu boppam daal di rek tàggoo ak PDS. premier président cour de comptes moom la yéenekaay bi di laas xëyee tey ay kàddoom la ñu bind ci xët bi moom euh, Mamadou Hadi Sarr euh, ci français ñoo ngi liir ci laas tey ji ci suba gi ne aucun président ne pour nous influencer moom euh, jiite rek cour des comptes Mamadou Hadi Sarr moom nga wax nag démb la daal di xam la yooyu kàddu ne daal ñoom am na seen indépendance te amul benn président boo xamante daal mën na leen influencer jëm ci seen liggéey di leen def loo xamante daal mais nga wut euh, ak li leen seen déontologie laaj ak seen biram indépendance mu joxe exemple président yi fii jot euh, nekk fii ci Sénégal yëpp daal ñu ngi leen di bàyyi ñu def seen liggéey comme na mu waree buñ sukkandikoo ci kilifa googu. communauté libanaise bu euh, Sénégal dañu fee yàgg euh, ba euh, yéenekaay bi di témoin amal ab gëstu ci ñoom ñuy lire ci xetu yéenekaay bi ci français confession du patriarche Taraf Samir aucun Libanais ne s'est inscrit sur les listes électorales loolu la wax waaw moom nag am na lu ko metti trop ba tax na rek muy sàkku ci mbokk sénégalo libanais yooyu daal ñu dem bindu ji ci liste électorale ndax jàpp na ni ay Sénégal donc war na ñoo dugal seen loxo ci mbiram politique ak yu ni mel moom nag jàpp na ni rek manque de civisme sax la ko jàppee jàpp na tamit gàcce la ci communauté libanaise boobu nee na tamit jeunes yi daal dañoo war a sentir dugg ci armée beeg yu ni mel jox na exemple kii di colonel Antoine Wardini mi nga xamante ni daal mooy seen fierté maanaam mbégte ndax moom mi ngi ci armée am na ci ndomba tànk bu kowee c'est vrai que ñu bëri ci ñoom daanaka ay ëpp na ñeenti génération ñu nekk fii ci Sénégal donc ay sénégalais lañu en tout cas c'est un dossier enfin c'est un sujet intéressant euh, tey jii ci yéenekaay bi di témoin ñu ngi lay gërëm bu baax Chérif Dia li ci des